bii ñu nekk nag dañoo tollu ci jeexital bi ndax ñu ngi ci contrôle des parrainages tey jii la quatrième jour bi suba la cinquième jour bi ñun suñu wàll bopp nag dafay baax ñu def benn taxaw seetlu am njàngat yuñ ci jëlee def li ñuy duppee évaluation ci kàddu yi président Birima Mangara président de la coalition UDP 2024 mu ngi sant bu baax ñi nga xamante ne nii ànd nañ ak moom diir bi mu jógee taxawal coalition bi ñooñu nag du ñenn ñu dul mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi am di jàpp yi militants yi ak sympathisants yi ak taalibe seen président moo wax na ne mu ngi leen di sant ci énergie bi ngeen dégagé mu ngi leen di sant ci effort yi ngeen def mu ngi leen di sant ci li ngeen jot a dajale ci parrainage mu ngi leen di sant ci pas-pas bi wa wane engagement bi ngeen wane mais ambition bi ngeen fësal diir bi mu ànd ak yéen. président Birima Mangara mu ngi ñuy wax ne coalition UDP Cuiraay biñ ko taxawalee yàggut ndax mën nañoo wax ne ci début septembre. waaye tey coalition bi coalition bi dem na tey bay buuxanteeg ñi ñu tuddee woon ne ñoom ñooy kàngam politique ténor yi nekk ci dans le landerneau politique maanaam ci géewu politique loolu nag ci diir bu gàtt lu tolloog ñeenti weer jàpp juróomi weer loolu bu amee nag du lenn lu dul coono bi ngeen def bëgg bi ngeen wane yéene bi ngeen wane mais déploiement bi ngeen def au quotidien kenn ci yéen nelawatul kenn ci yéen yéen dalatul kenn ci yéen dalatul benn soxlaam lu dul coalition UDP 2024 yaatu ba daj Sénégal mais coalition UDP 2024 mën a dajale ay parrainage yu ko war a mën a bokk mu am dossier bu dëgër mu muy déposé au niveau du conseil constitutionnel. cant ak ngërëm nag ñeel na leen waaye tamit taxaw ngeen fii surtout am na département yoo xamante ne am nañ fa taxawaay bu wér waaye rawatina département de département de Mbacké président Birima Mangara mu ngi wax ne lii ñu fi bu ñu ko fi amee nañ ko sant sëñ Abdou Karim Mbacké sëñ Abdou Karim Mbacké c'est l'invisible qui dicte le tempo ah président Birima Mangara mu ngi wax ne bëgg nañu ne sunu candidature bi ñu amoon porté woon jëmmam mu jiite coalition UDP 2024 ngir mu bokk ci mbër yi jongante sunu candidature boobu conseil constitutionnel nekkaat neenal mu ngi ñuy wax nag ci yenn ci ay éléments information yi ñu joxe wax nañ ne ñun déposé nañ cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrainage maanaam juróom fukki junni ak juróom-ñett yu teg juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom moom la ñu déposé au niveau du conseil constitutionnel. bañ koy saytu ñu wax ne ci li ñu déposé am na ñaar fukki junni ak juróom benn yu teg juróom-ñaari téeméer ak benn xob ñoom waa conseil commission bi wax ne ci li ñu déposé ba tey wax nañ ne am nañ ci fukki junni ak ñaar yu teg ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yoo xamante ne wax nañ ne ay doublon la keroog madame Mbacke ñu koy leeral na lan mooy doublon dafa am doublon interne ak doublon externe lii lim bii nag dañuy wax ne doublon externe la waaye ci loolu nag li ñu gën a yéem wax nañ ne am na ñaar fukki junni ak benn yu teg fanweer parrainage yoo xamante ne nii xàmmewuñ ko ah, ñun ci suñu wàllu bopp nag loolu def ñu ay laaj yëkkati ay laaj ñooñee vingt et un mille trente yooyu vingt et un mille trente yooyu wax nañ ne nekkuñ ci fichier bi te ñun mu leer nañu ay nit yuy dund yor seeni i carte yor seen i lieu de yor seen bureau de vote ñu récupérer seen i collecté seen carte d'identité remplir fiche yi boole ko joindre carte d'identité yooyu ak fiche yi déposer ko bëgg nañ xam ndax nit ñooñu kan moo leen génnee ci fichier macha allah bëgg nañu xam nit ñooñu nit ñooñu ndax dañ leen a génnee ci fichier bi ak kan moo leen génnee loolu nag dafay dëggal dafay dëggal laaj yi ñu daan faral di laaj mënuñu dem ci jongante ci fichier boo xamante ne téewuñ ko mënuñu dem ci jongante boo xamante ne kenn ki téye fichier bi bokk na ci mbër yi candidat buy dem élection da nga war a jot ci fichier bi ndax nag li ñu dal dal na yeneeni candidat dañoo bëgg xam nag ñooñu ndax dañu nekk ay nit yu génn àdduna ndax dañu nekk ay nit yoo xamante ne ne xëy na dañoo bokkul ci geneen làng ga tax ñoom ñu génne leen wala dañoo nekk nit ñoo xam ne dañoo dëkk ci yenn dëkk yoo xam ne ñoom amuñ fa yaakaar foofu bëgg nañu ay laaj laaj yooyu nag jagleeluñ ko kenn ku dul conseil constitutionnel ah ci loolu nag ngir sàmm suñuy intérêt candidat coalition UDP 2024 dugal na ab recours jébbal ko déposé ko au niveau du conseil constitutionnel ngir ñu wax ñu ñooñee ñu wax ne xàmmeewuñ leen te ñiy doomi réew mi nañ ñu wax ñoom fan lañ teg seen ñàkk xàmmee ñooñu leneen li ci topp loolu nag yoon la yoon moo ñu ko may dinañ ko topp waaye nag ñun ci suñu wàllu bopp bépp militant sympathisant coalition UDP 2024 nga nekk ci gox yi fasantikoo nekk ci biir réew mi ak biti réew ñun ñu tënku ci coalition bi doon ay militant war nañu doon ay mouvement de soutien wala ñu doon ay parti allié ñoo ngi yeesal sunu engagement ci président Birima Mangara que ñu valider parrainage am que recours bi aboutir wala mu ñàkk aboutir ñun ku ñu bëgg a jot da ngay jot président Birima Mangara maa ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewal bi